سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي جلدي بكي تاليبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maa دي نيو دي لين زيار دي لين بالحق دي لين بالحق لنيانو الشيخ محمد المنتقى سنو برام يقل كو في تغيرل كو با نالي مو نال الاسلام يب مغي فك نين بغي كو نيانال دابتو سيرن توبا بي ak kilifa diine yi ak boolem jullit yi di nuyu mbokk yi dëkk bi di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel ci bi jaaree leen nuyoo yi ci jawriñ Serigne di sàkku ci moom it mu jàll leen ci mboolem jawriñ ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen balaq di leen baal di nuyu Serigne Aliou mi nga xam ne moom it ziyaara bu baax. di ko jaajëfal si ñaar yu kaax di nuyu Serigne Cheikh mi mu doon jàngale moom it di ko ziyaara bu di ñaanal it suñu mbokk mu baax moom mu jiitu Serigne Xaadim keroog bi ma sëñ Ali moom mi wax dama ne ko woon xanaa sax dañuy bay bis bi waaw waaye ginnaaw bisu ñaan la euh, sëñ bi waa la koy defal lépp na ci donc koy siyaare waa daayira bi yëpp di leen ci ñaanal yàlla sunu borom defal ñu ci xolu muñ xamna do tan ko jantal alquran di jang xasi lepp kenn ku nekk na jàng fatiha ñetti ixlaas jàng fàllaxe ak naasi ayat kursi yu te rek tëje ko salatu ala nabi yéene ko yoon loolu day tax day jëf ci day da ciy jëf directement te àq jox sa diggante day day jeex te am na am am na àq sa diggante moom doo yëg ak doo yëgul àq yëpp di daal di tàggoo ñaan la boo xam ne même ñi seen i waajur jiitu boo leen ko boo ko dee ñaanal say waajur àq bi ak sa waajur yëpp suñu borom da koy teg muy ñu jàng kon Fatiha ñetti Ixlaas Falaqi Naas yi ayatul kursi yi julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam yéen a ko ne ci diine ak ndigal mooy li war di am mooy dara du ndax sàkku aw yiw la ak tiyaaba loola nag li ci war a dégge mooy mu xam ne jëmmi borom bi subhanahu wa taala dafa am lu tax mu sàkk nu wàccee ci kaw suuf ngir lola wax ne ni binduma nit ak jinne lu may nu jaam wax ne it digaluma len dara lu dul ngeen jamu ma ba noppi te ko day mel ni kon yàlla bindewu ko dara wàccewu ko ci kaw suuf dara lu muy mu jaam loolu nag bu ko ko ci kaw suuf boole ko it ak ay noon yu ko wër మీ పక్కన అక్బర్నే అర్జున అక్షయవారే lenn lu ci nekk wër doomu aadama am yitte yi gàllankoor ko ba dox digganteem ak ndigal yi ko yàlla digal bu dee bakkanam day noon boo xam ne la ëpp ca la muy la yàq mooy day digle lu moo tax am na ñuy tudde am nafsul amaarati bi suu am lu tudde am nafsul lawaama doon ko ne bakkan yi bari la nafsu raadiya bi nag am na waaye ñaar yii nag waxtu wu nekk ñooy jàmmaar la muy am nafsul bi suu benn bakkan bii moom waxtu wu nekk lim lay digal mooy man nga ko ak sañ nga ko ak boo defee doo wàññi dara mooy bakkan bi ñu tuddee amara bi suuf am bakkan boo xam ne mooy mooy mooy anafsu lawaama moo naan loolu de waru ak ëpp naa def ak bu ko ñaar yooyu nag waxtu wu ne dañuy jàppanloo bu ca benn ëppee doole ba ca benn ba moom lay topp bii digle lu baax bu notee waxtu bu nekk borom ci lu baax rek lay daw jëm moo tax jëmmi bàkkaar nit kaa ngay ci li ngay def ba noppi waxtu yi nga koy def day ànd ak tiitaange te bëggoo ko xam ni ko yonent ma xaaka fi nafsik wa karihta an yattala alayhi naas loolu la ñuy tuddee al ithm damay saa yoo koy def rek am na lu lu lu lay tiital loolu nag moom it benn paaga la boo xam ne benn énergie benn force boo xam ne day mel ni ab dynamo wala mu mel ni benn pièce boo xam ne dafa am rôle bu muy suyee bu demee ba yàqu mooy wala nit du tukki du teg dara du ko maanaam ndax li war a segg dara bu amatul wala li ko war a téye du téye di benn mi ngi mel ni li amul antivirus waxtu mu nekk virus bu ñëw di tàbbi ci moom kon nit ki fekk mi ngi bëgg a jëw am lu mel ni dana tëf ci fitam wala mu bëgg mooy yàlla mel ni am wala mu wax lu du dëgg yëg loolu xam ne jëmmi pièce boobu ci boppam mi ngi dund ci moom deegut mu war di ko sàmm loolu nag mooy soññi bakkan mais bii bëgg a jëf lu nag sa bu fekkee ne nag nit ki dem na ba amatul loolu mooy ki jënjuwul xameewul njàngu alxuraan xameewul ay armée la ak marché duutu njaaj yow ci xameewul musique ak xasiida dara du ko waar bu boobaa nag xol bi dafay lëndëm ka sew dara du ci tabbi sunu borom nag atte ñaar ñooñu wax ne wa ma man taxaa wa athara ayatu dunia fa inna aljahima hiya almawa wa man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa kii bew nga xam ne bu reggee bu yëngalee loxo mu yëngu ñu yëgee ne am na condition bu bëggee dara am ko bu bëggee bànneexu bànneexu wa aadara xayaati dunia bu jël adduna jëndee ko ëllëg suñu borom ne ne amul fenn fu ma koy xaaree lu may tàmbal ko sawara rek mooy dundu bàyyi ma bu ma tëddee lekk naa naan naa yëguma woote yàlla waaye ki ragal waaw xaafa maqaama rabbihi ki ragal taxawaayu boromam ëllëg wa nahaa nafsahu anil hawaa fexe ba xeex ba kanam ci xaj ko bànneex lu mu dund ci àdduna lu mu metti metti bu bu génnee àdduna fa ila jannati yaloo ma waat moom wéeruwaayu ëllëg mooy àjjana kon bakkan boobu lu mat di xeexal la mooy bakkan bi nga xam ne nii suñu borom dafa xam ne ki ko sàggane bàyyi ko rek raxasu ko dana dem ba natt ko ci gépp fànn nga xam ne jëf ab yi gën a yomb ci moom sax jëf yiw seytaane koy accompagné di noon boo xam ne Sëñ Tuubaa nee bu kenn naagu ci pexam seytaane fekk sa ruux mi ngi sa biir ndax seytaane waxtu mi ngi génn adduna sax day ñëw taxaw muy ko xam ne nag benn kàttan la am bu muy songee mooy boo sàgganee ñàkk a tudd yàlla néewal azkaar yi ak jëf yu baax seytaane moom dooleem egg na ci ni deret ci doomu aadama di dawee ci yaramam ni lay dawee ci doomu aadama salaa sallam wax ne الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر خنس وإذا غبل وسوس seytaane dafay buuf ci xolub doomu aadama bi ninki ganaar di def ci ay cuujam boo tuddee yàlla mu daw boo sàgganee mu jaar ci xeer beneen noon bi topp doomu aadama mooy li ñu tudde bànneex ni alhawa day réere laate te mi ngi songe ci wax ju bari ju amul njariñ ci la lay fabbee jël sa temps jël sa lépp bi ci des di duniyaa duniyaa moom tekki na boppam mooy lu suufee muy béréb boo xam ne nag war rek mooy mbiram adduna bu ne jox ma sa loxo xalsat na kàmm gi mu lay daaneel bu ne jox ma sa nopp lu la wax du dëgg adduna moom mooy béréb bi gën a mën a wor sëñ Tuubaa nee na wala turi te du la woon mukk benn njariñ te tëbbalu ci biir njariñ lor saa yu la adduna wonee dara rek ba nga jàpp ne njariñ la sëñ Tuubaa nee na loola ngi ci biir muy bi ko suñ tubaab di misaal ne misaaluha ajusatun danniya fi athbi nafsin xafiya yaxsibuha al axmaq xiina lam yura siwa libaasa lati qad yara adduna day mel ni màggat bu respecté ay gëtam leerul ab dënnam na ñaraas maase mu fexe ba mag yow sol yéere yu rafet ne ko sëñ Tuubaa misaale misaal waa xale suñu dana yee màggat mu màggat lay doon fexe ba muur kanamam rëdd ci ay rëddam dugal ci ab dënnam dara ngir mu taxaw bu ko aji dof gisee yaxsibal xaq ahmaq ina lam yura siwa libaas zanati xata yara sëñ Tuubaa nee na ki xamul dara nag xàmmeewul bu gisee àdduna mii ak yére yu jekk yi rek mu gëlëmal ko mu demee na waajaa boobu ndaw saa boobu dëgg dëgg fekk na adduna la gis bu demee ba jàpp ne na ca ba war a fatu moom bu dindee fekk lépp xosu bu dindee gën ya mu mel lu mu mënul gis mu door a découvrir ne lii mu doon topp dara baaxul waxtu woowu muy yëg loolu nag fekk na rëccu wees na muy béréb boo xam ne moom adduna daf lay won ak jege te sori moo tax suñ jubaa doon wax ne adduna romb waay la ëllëg mooy bisu saxawaay ba muy yomal xiyaama doomu aadama bi bu tegee tànkam ci kaw suuf am na مسؤوليه بو ري بو نيك تي موم تي با بارامو يالا دا نكو لاج بو ساغني تي نياك كو توب لو تي نيك القران انديكو اي كيسيون لاي دون يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في اي سوره ما شاء ركب لولو بوكو يالا لا دي ام جام لان لي تونت ما لا بين تي ملاوي غينا مات خول فورم بي غينا جيك ma bindee la ko maa xalaqaka min rabbikal kariim loola wor ci sa borom loola bi ba dawuloo jëm ci yàlla amuloo ci yitte borom bi waxaat ne afa xasibtumu annamaa xalaqnaakum abadan wa annakum laa turja'uun waaw nit ñi moom ndax bi ma leen di bind dañoo jàppale dama leen di bind bërgël leen bàyyi leen ci foofu wala jàppale ñu doon daje si fii ci loolu moo tax. doomu aadama bu bëggee jëm ci yàlla dañuy wax ne mënta ñàkk mu am dalil haat am gidd bu jub am sëriñ bu mat sëriñ bu koy wommat ndax bakkan bànneex àdduna seytaane ay noon lañ dañ leen di tuddee xotaaw tariix ay agresseur lañ yoo xam ne faw nga am sëriñ bu xam xam bakkan li songe xam àdduna xam seytaane xam bànneex moo tax suñ tubaab na ku jóg jëm ci yàlla bu mu jóg rek wàcc mais bu déedéet wa man yurid li rabbihi wusula fal yabghi qabla sayrihi dalila Sëriñ Tuubaa nee na ki jëm ci yàlla balaa jóg na wuti sëriñ ba man sëriñ bu koy moom na mu ne man talabal wusula lil jalil fal ya'tasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yamil fi zahirin wa batin an sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki aada sëñ Tuba nee na ku bëgg egg ci yàlla te egg ci yàlla di sa yitte fal yaxtasim bi sunnati rasuli na jàpp ci sunna si rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo jàppee ci sunna si yonente bi nag ndax sallallahu alayhi wa sallam kenn mënta egg ci yàlla te jaarewuloo ci moom suñu borom bu xut ne wa man yuti ala faqad raa rasul yàlla waxu ko wa man yuti rasul faqat ataa Allah la wax yàlla da ne ku topp rasulullaay topp na ma yonent bi salaahu salaam sëñ Tuubaa nee na ku ku fi teggi jubam gii ak baaxam araam na ci yow nga mos àjjana ku fi teggi jubug salaahu na ci yow sëñ Tuubaa nee nag des na la tàbbal sawara ëllëg di la jéng jéng yoo xam ne ci sawara wu tàng loolu la wax xaraamun ala man hudahu aba duxulu jinaanin daxilan tarix wa man lam yalid natijahu yundawar bi xullin daqilin wa naarin lafo moo tax may wax ne nit ñi bu ñu doon dégg sëñ Tuubaa kenn du tuumaat sëñ Tuubaa ci ñàkk jàpp ne bidaa ya ci ajoo yi xamul yépp sëñ Tuubaa ku jàng mbindam xool ni mu yare nit ñi da ngay xam ne booy seet nituk sunna dëgg nituk sharia gu mat mooy si Amadou Bamba dafa dégg fii loo xam ne nag yeneen gaa ñi xamuñu ko ndax moom sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam yeesal ko moo ko feen yoon il Mustafa nawaytu may jaddidu sunnatahu lxarra wa inni ahmad defe naa nag buñ ñu jëloon nit na ko kaay nga yeesal ba timaa bii bu fekkee ne jàngul machine jangul jàngul électrique jàngul nekkul premier xamul yi aju ci yi composé bâtiment yépp ngir mu yeesal bâtiment bi dana jafe ci bop lolu mooy tejji bâtiment la bo xamné ne dañu naan tiwa yi toj na kon àjjana premier fi li dagg na àjjana électricien karo yi àjjana carleur lu ci nek ñu né amna lu mu laaj lolu nak li ci sëñ Tuubaa ak ñëpp mooy ku mas a ñëw di tëj ji benn façon ngay yor da ngay nekk maçon ñëw raccordé wala nga nekk électricien wala naam sëñ Tuubaa nag mi wala tëj ji lii moom da ne ilay yaqaada la ilma al awliya kal anbiya wa rusulihi fi naybiya nga xam ne xam-xamu Moussa ak Isa ak Ibrahima ak Ishaq ak Yaqub sëñ bi da koy doon ba noppi doon na xam-xamu wali doon na xam-xamu borom xam-xam yi mooy tax. bu ñëwee ngir yeesal yeesal bi du dem jëggaani ne man mënumaa doon électricien déedéet li ci bâtiment bi lépp da koy mën a yeesal moo tax mu ne mawaafatuhu kulli min allahi taxarat wa sunnatahu insha rabbi ubayyin kon leeral sunna su rasulullahi sallallahu moo tax sëñ Tuubaa ñëw bi mu ñëwee di wommat nit ñi jëmee leen ci sunu borom Cheikh Ibrahima Jib al-Mash'ari nee na sëñ Tuubaa موي الخافض البتعة السوداء في أبد والرافع سنة البيضاء بالهمم سنة سلندم بلا بلندم بوكاك سيد جبال الفنيو نغير قرتي بلا بوم يكتي سنة سنة تبع عليه الصلاة والسلام دك مال يالا نيمي وبات نيب مو دك مال لين جيمي نيك سوني بروم يا ايها الناس اعبدوا ربكم بما به خير ورجاءكم دغ دا لي نيت da ngeen jaamu yàlla boo leen di jaamu yàlla foo leen koy jaare bi maa bi yi xeer war a jaamu ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi da ngeen ci jaare ci jaamu yàlla kon yoonu ku bëgg a ci yàlla day wut sëriñ mat sëriñ bu mat la jëmale ci suñu borom mu xamal la mooy buur amul ndend lu dul suñu borom pour yàlla na yàlla moom moo beru spécial kon jàmm bi jóg jëm ci sunu borom na bu amul ku ko wommat jëmee ko ci yàlla ak yeggam jafe moo tax sëñ ku ñàkk sëriñ bu lay wommat bul jàpp ne amuloo ku la wommat seytaane lay wommat ndax fa kullu man adima fa cheikhuhu boo amul gidd rek bu lay wommat giide la nee na faw شيطان يوم ما ليوما سنجوا بابلون وهم متنا جرم جاب ما يقدر تبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم ما سجن بالكتاب مسك الضريري بيد القائد البصير المعين نجار يقام في ميجار سلم خجوب توبم لم كي وهم متنا نحن نولا دفتي القرآن نخاف نجيب نتفهم نجيو يوم أكيف يدنتي بسم الله عليه وسلم jenn waxam bi juuyoo ak waxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu yonent bi di wax mooy doon waxi sëñ Tuubaa jëfi yonent bi mooy doon jëfi Cheikhul Xadim bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam it ba mu gënal ko lépp nii murid yi di def naan sëñ bi jox naa ko sama sama bopp samay njaboot sama lépp sëñ Tuubaa noonu la def Rasulullaah bi wasiilaam sëñ Tuubaa dafa jox yonent bi ruuxam jox ko jëmmam jox koy doomam jox koy way juróom juttu lahul yawma بروحي والبدن وولدي ووالدي في العالم كون امول لومي ديسال لوم مومن مي خليمام دام على لم لب بير ادي رسول الله نقول جملة مالي والمداد والقلم هدية للمصطفى باب النعم كون موم يلنتي بريك لا داك يلنتي بوبو مو داك نا دنگل كو امول ген بغ ولا ген جوبلو ولا بن دخي لومي صلى الله عليه وسلم عليك. mës ta woo benn bakkan it jëmee ko ci adduna wala kenn ku sëñ Tuubaa yar adduna am ci yow la amut ndax moom adduna da ko wonoon ginnaaw kenn déggul tool yi sëñ Tuubaa ko daan bay wala nga dégg mel na mag mu ne nettali ñu ne mag mii moo yoroon jurub sëñ Tuubaa gi di ko sàmm amul mag mii moo yoroon bitig bi sëñ Tuubaa moomoon wala magasin sëñ Tuubaa bi amul diw mii moo yoroon kopparfoor bi yor xaalis bi sëñ Tuubaa moom la daan dégg muy amul sëñ Tuubaa mës sa da ko woon ginnaaw rek xam ne adduna moom nii mu mel ne mel amul yonent bi salaa salaam nee na adduna bu ko yàlla tegoon ci balance teg laafu yoo laafu yooyu moo ëpp personnalité ci suñu borom ci adduna kon amu ci benn soxla yi Abu Bakrin Seydina Abi Hurayra boo demee ci site bu jawaay yi ni sëñ Tuubaa nettali na nee na ànd nag moom di dox ba yàgg mu ñëw fekk aw xur woo xam ne xar yu dee bu yàgg bala midd moo xam ne bopp yi tàggaloo na yax yi seey mu ne lii mooy misaalu adduna te lii li muy li borom gàtt bi bi gàtt bi dee ñàkk bëgg gi mu ko ñàkk bëgg tax mu wat ko sànni ci àll ba li mu ko ñàkk ñàkk soxla yàlla adduna la gën a bañ a soxla ci gàtt boobu nga xam ne amu ci soxla moo tax salaahu salaam ne xubbu dunya si kullu xabiya danger yëpp mi ngi ci njëlbeenu maanaam njëlbeenu danger yi boppu danger yëpp mooy bëgg adduna sëñ Tuubaa nag bi mu ñëwee ngir xetali nit ñi jëmee leen ci sunu borom bi mu xamee ne bakkan mii ci regg lay songe mu fexe ba nit ñi di xiif mag ñi dañu leen xëy suba di liggéey ba ngoon nga bu pepp kolkolum cere dañuy am te bu dee riir jëm ci rasulullahi salaahu salaam kenn mës am doole gi Sëñ Tuubaa am ci yonent bi salaahu salaam ba yaakaar naa maa ngi vidéo yi barki dem sëñ Moustapha Waalo moom sëñ Moustapha bi yerwaay tontu yi ma tontu sax dafa wax ne lañ ko yóbbu ci internet bi nga xam ne ilaa ilaa ilaa xibbi yow ilaa xalili yow xabibi la sama xarit sama dafa maa woo na ma sëñ Tuubaa ko wax ne la ñëw jàppale si moom si Moustapha Waalo mu ne maa ñëw directement pour jàppale si ne moom moom wax ne bàyyam sëñ Moustapha Gueye yowaay nee na ko walli yu yàlla yëpp ci biccum kaalam rasul mbiccum rasul lay la ñuy jàpp daan na ko walli yu yàlla yëpp daan na ko walli yu yi mas na noonu la ngaa mii di ci mbicci rasul lay salaahu salaam waaye bi Cheikh Amadou Bamba day ñëw riir mi ak doole ji mu ànd tax la walli yëpp ko mu ne ko man mii keroog ci mbiccum Seydina Moussa laa jàpp moom sëñ Moustapha Gueye yowaay daan na man keroog ci mbiccum Seydina Moussa laa jàpp sëñ Tuubaa ma xëcc tafaat ma ci ma ah, toog ci eggale gi ci boromam te ñooñu mu doon wormal xool cër yu rëy yooyu ñu koy am am waaye dañoo jël ab du teg ci suuf bu dee seytaane ñu xam ne sàggar lay songe mu andi dikr te mooy taalif ay xasiida maa ngi di jàng alxuraan di jàng xasiida di ko saxal ngir xam ne murit bi li koy tax a mucc mooy bari li muy tudd yàlla. mooy ñam bi gën xont bi gën dund bi gën aliment bi gën ci aji soobu jëm ci yàlla xayru taami li muridi saalik dawaamu dikri di jëlaali mali nit ki lu mu dàq jàng alquran lu mu dàq jàng xasida mi ngi dikkar saytaane di ko gën a ba bànneex wax ju bari joomul njëriñ lay sogge sëñ bi fexe ba mag ñi di noppi nga xam dañoo am jot kenn ku nekk da nga am sa waxaf am sa wér yoo war a doxal doo am jot daana xëy dajale mag ñi loo fi wax biig wala ci ngoon nit na ko àbb naa xalima àbb naa saatu sof sama xalima danaan bëriwut waaye ba léegi da gën a néew bu dee adduna benn moo waral dëkk bu masa a sanc bu nit ñi tàmbalee bari rek mu bàyyi dëkk boobu dëkk bi mu njëkk am mooy Daaru Salaam bi nit ñi tàmbalee ñëw mag ñi di denc ay soxna kenn ku ne say bokk di seet si mbooloo bi tàmbali bari mu bàyyi ko mu dëkk seet ci musula muy bero moo tax sëñ Tuubaa daan beru ñeme am al tay ji bo duggee ci àllub Kajoor ak Bawal ak Siin ak fune da ngay deg ñoo fi sëñ touba julli na fi waxtu wi sëñ touba julli na fi sëñ touba nangam nangam tay ji ñun ñi def karawaan bi ni ñi ay wata la ñi war ñi ngi dugg ay avion yori 4x4 di ci def essence mais sëñ touba tankam la yoro ak di for ba legi mën ko no dajal karawaan bi ba léegi mënut a bi jall ñi ngi mujj dugg fi ci réforme magal touba bi mais lo dajal Bawal bët bu set ñu woo la démb ñu ma woo na ma pour sëñ Tuubaa dafa jaaroon ba mu jëmee xaw ma dëkk fan man xam nga kooku nga xam ne man mënul woon a trouvé loolu waxtu wu ne ñu ne la fii sëñ bi jaaroon na julli woon na fi da ngay ñu ne sëñ Tuubaa julli na ñi yore wata xam ne ak seen man la koy def ba mi muy dem gànnaar bi ko naa di ba war gëlee moom suuf su tàlli suñu romb day wàcc julli mujj dañ koo teggalee suuf yu naat yi yu yu tàlli yi diko ko wërale ci biir tet ji bek nga xamne souf ci du neex a jullee waaye suuf si tàlli suuf gis rek lay wax ne tap bi de neex la joxe borom sun borom akam dal di sànni ab dërëm kàbbal nga xamne musul am ak jot ñi mu àndal it mosunoo am ak jot waxtu wu ne dañuy xamne amna lu leen di dàq ndax Sëñ Tuubaa nee na nit ki bu nekké ci kër kër yi aduna yi rek. ak naal yeeg yitte yi ba fàtte yàlla bu dee ñëwee ci ngërëm te rek lay nekk waylu liman kaana bil amali mushtaghila hatta atatxul manaaya wa fi xayali ci adduna dara du sotti adduna yàlla yàlla mi ko bind moo jublu mu jag xam nga ne li ngay dégg ci adduna bi diw rey na diw diw jël na alali diw diw egg na ci diw wax ju ñaaw ju nekk adduna di ko di ko di ko signalé nga xam ne suñu borom mi bind adduna moo nëmmul adduna jag ju bi nag waxtu wu rek mooy waajal boppam ngir bañ dee bett ko sëñ Tuubaa daan na laaj mag ñi doo leen di waajale dee ñu ne ko am ah, mbàkke noonu bu jant sooyee rek jàpp nañ duñu fanaan bu jant fenkee jàpp nañ duñu yenn mu ne xasee na leen a bett ngir ngeen bañ mu bett leen da ngeen di jàpp ne noogu yéegi rek balaa wàcc dogal ba ñëw kon diggante bi doo fi tal danga da xalam sa borom ci sañ-sañam aba Ishaq nee na woon jullit yi li leen gàllankoor ba bu ñu ñaanee yàlla du nangu mooy dañoo xam yàlla ba noppi joxuñu ko xam te jii baas bii ñu toog rek kenn ku ne xam na ne yàllaay buur man nga xam nangu ne yàlla kenn la. waaye maa ngi nit ñoo daan bokk ñoo daan toog ñoo daan waxandoo ba ko xool tey gisuma ko te léegi ki ko fi jëlee kenn gisu ko man mën ko attaqué te dana dellu si te xamuñu ku muy doon ci noonu boobaa lan ko ko waajalee loolu ab jullit di jàjjoo mooy day jàjjoo ci ne am na lu xew te mi ngi mel ni ab natt ku ci bokk di teg. diw teg na diw teg nañ ko teggeel nañ ko adduna ak ay la ku ne aay te ku aay ku ne da nga fegal ala ku ni adim ku mën a doon bis dana ñëw nga raxas say tàpp bis dana ñëw nga ub sa bunt bis dana ñëw nga dutu bopp kon lan nga koy waajale rek mooy yaa ngi waajale ci jëf ju baax yaa ngi a baax waajale ci jëf ju yiiw yaa ngi ko war a waajale ci am yitte ju kawe jëm ci sa nga ne tey maa ngi 24 décembre bu bisu tey bii dellu si muy 30 nawet bi la ñaata xasida laa fi mokkal diggante 2019 ba 2020 ñaata laa fi dimbali ciw nit lu ma fi jokk ci ak lu ma fi def ci lu baax lu ma fi def ci daayira bi wan yiw laa fi dox ñu ma fi jubali ci ay bopp ab julit noonu li yenente bi lii Seydina Amadou doon xaasibu anfusakum qabla an tuhaasabu na régler réglé seen bopp wala ñu leen a réglé loolu la nit ki defee bilan 2019 yaa ngi dugg 2020 nga yëg ne nag 2020 moom 365 jours la génn ci dund lu fi dolli quoi fukki weer ak yaar génn na ci te dund ci dolli dellu quoi te ay na maa teg ku wu ñu yu dul ku mu nawtoo la ku dugg fi mu wóor ñu yàlla moom bu ko programmé amul nit ci ab soto la amul mu ngi ci ay weer amul mi ngi ci building amul mi ngi ci avion amul nangam waxtu wu ko soxlaa li mu bëgg rek loola yam léegi yow lu ma ko waajale nga ne fexe ba bàyyi jëw nga ne lu tax nga ne jëw kat suñu borom ne benn yoonu jëw boo ko tuubee yaay mujj tàbbi àjjana ëllëg boo ko tuubee boo ko tuubul nag yaay dikk tàbbi sa wara ñu ne lan mooy jëw nga ne tudd lu ne ci nit ki te bu ko déggoon du ko neex léegi jëw bi yëmul ci nit ñi dund ba ñu ci armée yi dañ leen di jëw wala denc nit ñu jàng lixlaas nga ne ci leneen di jëw di waxtaane adduna ak kër ngërëñ kon nga ne man naa moytandiku jëw ñu ne fanweeri yooni njaaloo benn jëw lay wecc ba borom wax ci alxuraan ni tiim sa mbokkum julit mu faatu sa mbokk faatu na di ko jëfandikoo li muy ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw jëwa ko gën a ñaaw yaa ayyuha alladina amanu ijtanibu kathiran mina dhanni inna dhanna ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan an yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh ab jullit xalaat ne kon man danaa bàyyi jëw bàyyi ñaaw njort ndax in ba'da dhanni ithmun yenn bakkaar yenn njort yi bakkaar la wala tajassasu bu leen wuññante mu digal la bu leen wuññeenti gëstu te yu ñaaw te loolu moo bari ci ab bi léegi da ngay xam nit mu doon nit ku yiw ñu ne diw ku baax la nga ne waa sa waay loo xam ci moom loo xam ci moom mooy bëgg a déglu ci moom yu ñaaw kon xam nañ yàlla joxuñu ko xam-xam mu ne bi ci ko bu ñu jëfewul alquran kenn benn bu ñu ñëwee ne la wax na loolu ñaaw alxuraan leen na ko gëstu ba xam dëgg la wala du dëgg nga door a attaqué nit bu nu jàngoon alxuraan jëfee ko kenn du reetaan kenn bu nu jàngoon alxuraan gëm ko tamit dëgg danañ dégg suñu borom at waxtu wu ne yaa ayyuhan naas inna wa'da llaahi haqq falaa taxurrannakum hayaatu dunya wala yaxurrannakum billaahil gharuur yàlla nee na li ma déele dara dara du ko dindi bu leen adduna war bu maa leen bind benn par benn danaa leen faat benn par benn te kenn mënalul sa bopp dara ba ci topp ne ngeen ci xeetu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bokk doo leen jëfe sunnaam benn bi yéen a ngi muslu seytaane tey ànd moom gëm ngeen ne dee dëgg la waaye waajaloo leen xultu bi na mawta walla wala tasta'idu la ana loo leen ko waajale mu ne bi ci topp mooy yéen a ngi bëgg a tàbbi àjjana te jëfaloo leen ci yóbbu bëgg a mucc ci sawara tàbbal ci seen bopp suul seen i néew te waaruwu leen sëñ Tuubaa dafa mos a nekk njéeréer ba yàgg am kurée dégg kurée ba xaqtaay sëñ Tuubaa na ndax saalaa taxaw maanaam bis penc ban atte jàpp ñu ba ba noppi ah Mbàkke mu ne ah kooku ba mu yëg ne mucc nga rek la ko ree war jéggi siraat sëñ Tuubaa daan wax ne yetti kullu yi ku ko seetantal loo tala reetaan day xàppataay dañ ci wàllu ree ba képp moom jéggi siraat ëllëg képp yëg na jàll nga mooy tax nga war koo def jéggi pont ba ba mucc te léegi-léegi dégg ci biir ab dëj nit ku lelle ñu fitasu e eh, ay waa ji ci dëj ngeen ne di kon defantu awaatu ko lam taxabiru lahum soo ngeen seen nii yu ay waaruwu leen ci mu ne bi ci topp adatu ni'mat rabbikum wa lam tashkuru la lekk ngeen xéewalu yàlla seen borom waaye santoo leen benn bi da nga ko istaqatum bi uyubi ikhwanikum wa lam tanzuru li uyubi anfusikum koo ci seen mi ngi ci ayib yi jàngoor fàtte ba moom yittewoo sa ayib yi mbopp bàyyi sa ayib yi mbopp ku ñu wax nga ne li ma xam si moom yàqantey der bala bala ngaa dégg sax ñu ne diw nañ ko ragal ndax daa ñaaw la mi ak diw lim la xamal ab jullit du mel noonu kon ab jullit day préparé boppam waxtu ne sëñ Tuubaa loolu la ñu bëgg noonu mag ñi am na ci koo xam ne daan wax ne yilif li tàmbali ndar gépp ma yilif ko ak yanu kallu mburu di jaay rek laa yemale daana wax ne adduna lu ma sédd dama ko gëne waaye man sédd dama ko daal maam Cerno borom daarul Muxti daana wax ne kuy dund ku ne defal lu la neex nga tudd waaye ku dee ñu att ci dëkk borom daaru daana wax ne nit ñi na ragaleeg ñàkk buñ ko ragaleeg yàlla dara du jeex juróom-ñetti fukki at yu man ki ñeenti wër la borom dara wax ci dundu ci aduna ñaari yoon la ma ci tim bi amé amee ndox fay ndox borom dara bo ñëwé nako dagga dàgg na mo alhamdullilah diu gane ne jamono alhamdullilah diu faatu na alhamdullilah diu wal anu la di alhamdullilah borom dara bu yalla dogal neex du du ñax ci benn mbir kon ab julit waxtu wu ne xam nga jullit day mat ak murit door a mat nit mënta nekk ab murit te nekkul ab jullit al murid huwa al mu'minu al muslimu al muhsinu alladi la yuridu shay'an mardatullah fi kulli aqwalihi wa af'alihi faaw nga nekk jullit te jullit dëgg yonent bi nee mooy koo xam ne jullit yi mucc nañ ci loolu loxo mucc ci loolu làmmiñam ab jullit lu mu mënul tudd ci làmmiñam waru ko bind message waru ko bind mu yem ab jullit aji gëm mooy ku way gëm yi wóolu ci seen deret wóolu ci seen alal aji rafetal moy ko xamne fu mu nekk di jamu yàlla day yëg ne yàlla ngi koy gis xamne mo bu gisu yàlla it yàlla ngi koy gis na waxumaa ku may ne maa kuntu ñaxal na si bopp moo jeexal ko ñaxal ma si moom suñu borom dara na buul ci moom te ma dama waxtu wu ne war lay xalam lool ay bi nit ñi gëna min ci alquran mooy kullu nafsin daa'iqatul mawt bakkar bu mus dund mus dee loolu da ngay wax ak nit mu di la ko wax wala nga ci way kat bu koy wax waye ku ko gëmon ta xam ko da nga xam ne yàlla moo gis nga ab jam ku tàggoo këram na ma dem te ñew ma dem ñew ñëw tàggoo këram ma dem te ñew dem ñibbi si waat ba noppi tëdd julli géey jotu julliwul kooku fayut yalla ndax bi nga ne ma dem te ñew nit neena ma dem te ñew yow nga génne sa kër ma dem te ñew sax njaboot na demal te ñew nga dem jël ci am ku wax wa këram ma dem te ñew bam mu ñewat borom daru daa ma sa toog daaral moxti ba yàgg ñu jékki-jékki rek di yuuxu joy joy wet borom dër lu xew ñu borom kër sangam mo faatu borom dër na borom kër bu faatu de jërul jërul joy ah waaw mam cerno lu jar joy la mu naa xanaa borom kër bu leer ba léegi tëdd tëdd ci julli ge ko ko rek a jar yuuxu wala si jabdu xulus mas na ko wax am ko xam ne ci sërum la joge jóg ci jabdu xulus ndax jàjj ko ci baat bo borom dër mos bi mos ci wax leer ba rek tëdd julli wo gee mu ne moo jar yuux waaye ku reer borom kër bu faatu jëru jëru yox xool boobu gisin yow suñu borom may la kattan nga mën a dem lu la yàlla may rek am na ku mu ko xaj lu la may rek am na ku xaj moo tax ab jullit waxtu wu ne war nay xalam xéewal di ko yàlla defal boo tibbee sax mu jàll yëgal ne waxtu bi ngay jàllale am na ko ay raakoo ci lay naan am koo xam ne bu soxlaa boppam faaw day dem ci ci ci docteur am koo xam ne waxtu wi day bëgg mu ngi ci métti loo xam ne mënuñ su ko misaal kon ab jullit waxtu wu mu toll rek bu tiimee ndabam sax waa këram wër ko muy xéewlu di xéewlu ba yëg ne mi ngi xéewlu doom yi daw song ko muy ree am mbégte na yëg ne waxtu wii muy xéewlu am na moroomum borom këram moo xam ne dara jëlul ci putam kon xéewalu yàlla gi bu ko jàmm bi lekkee sañ naa sant yàlla ko santa santat yàlla mooy li ci lim la digal sëñ Tuubaa ne dëgg dëgg cant yàlla ci mooy seere xéewal gi mu la defal taw jëm ci liggéeyal sëriñ Tuubaa nag dara desu lu dul lu olof Njaay di wax lu day takk-takk bàyyi kuréel mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom ku daw làqu ci tey liggéey tam wér mucc gis nga ki ne ci toolu Serigne Touba di liggéey ba faatu dama mas a ñëw ci armée di ñaari nit daje kenn ki naan na ñuy dugal benn néew foofu mu naan ay waay kii maa ko ñee waay beneen morom morom ay mag lañu kenn ki ne ko boo ko ñee defal ne moom mu ne ko déet ñee mooy moom mii moom faatu na ba ñu ko dugal ci armée yii nga xam ne sëñ bi ko joxe woon ndigal moom am na mujj man na xaw ma ci géej laay suux xaw may faatoo sama néew xaw ma te kii ñu ngi nii di ko jébbal sëñ Tuubaa man de laa ko ñëwee rek waaye ki ni ci waaru sëñ Tuubaa ba wàcc loolu sëñ Tuubaa lii moo ko assimé loolu sëñ Abdou Samad sëñ Chouaïbou daf maa wax ne ma li ñuy def ci tool yi ngir kii di ko daw nu tudd xor xor nee lu bokk ci sëñ Tuubaa lu laal lu laal ci sëñ Tuubaa loolu laal ci sëñ Tuubaa rek wala defee ci biir bàmmeel noonu la ñaari malaaka yooyu mel lañ lay daw muy mun kër nag kii bu ñu la laaj mukk dañu lay daw ndax sëñ Tuubaa nee na ñaari malaaka yi ci biir bàmmeel xam nañ ne man maay seen sëriñ te xam ngeen xam ne maay seen sëriñ doy na malaaka yi du leen laaj yéen kenn kon liggéey sëñ Tuubaa nu mel fa maa yaqdimu seex ila saidun anin naari wal mubiqati baim sëñ Abdoulahi Diané ci mag ñi la bokk dafa a nekk ci ay ne ci liggéeyu tool am séeréer bu ko lom sëñ Abdoulahi Diané woo ko mu ñëw mu ne ko man nga maa liggéeyal mu ne ko waaw mu ne ko liggéeyal seen Tuubaa séeréer bi ne ko waaw mu ne ko demal ci tool yi mu daan dem sas boppam dàq bay gaañ yi di bay di bay ba sasu boppam li liñ ko dooñ mu bay yeneen dooñi gaañ egg këram guddi gi jot mu reer ba rek fàtt ñu wax ko sëñ Abdoulaye Ndiané mu ñëw bi ma ñëwee mu ne ci bëccëg roogi daf maa romb bi ma bi ma bi ma séeréer bi romb roogi dafa daw tafu ci man dama jaane bu suma liggéeyal seen Tuubaa tey lay génn àdduna fexe ba ma liggéeyal seen Tuubaa loolu laa xamoon tax ma doon ko liggéey loolu du ma liggéeyal seen Tuubaa te Ibrahima Diané moo doon tuuti jiw seen daam Diané mu ne ruugee daw na ma musuma liggéeyal seen Tuubaa ma bëgg koo muccel sobe ko tax ma leen a liggéeyal seen Tuubaa liggéeyal Sëriñ la xataa sama rahmaanu xudaa mu maan min an naari ikraaman li faqri ama jidi li yàlla njëkk a garanteel ki liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy àjjana te ak texeem yi mu ci moom boppam képp day ramu ci kër ndeyam ramu ci kër baayam kon liggéeyal Serigne Touba mooy li nit ki mën a def mën a assuré ne lim doon wut am na ndax di su ko set lu dul liggéeyal Serigne Touba nag des na ko càbbar ay liggéeyal Serigne Touba moom Serigne Touba da ko ñaan ba noppi waqdi hawaaji ladina daamu fi xidmati wa hum lahum maaraamu inna lasina saaroo li xidmati fa lahum diyaar waxtaan bastan jàmm si ñi dox ñi jóg ci dima liggéeyal yow suñu borom bu yam ci faj seen yitte waaye da leen wutal ay njëriñ ci digg àjjana liggéeyal Cheikh Amadou Bamba mooy ngëneel day muccal nit fa Tuubaa li sax seen kaada bi siddiqi xadima am na ko ne woon man am ma a xadimal murtada xuluqan wa saxaaba siddiqu naa leen fawzu bil watan képp ku wéeru ci seen Tuubaa te wéeru bi di tëgg tàggoo nga ñàqari àdduna ñàqari àlaxira Cheikh Abdou Khadir Mbacké mu baax ma am na sama mbokk moom wasa nettali ku baax nee na way juróom bi mu génne àdduna damaa ñëw wax ko Cheikh Abdou Khadir nee na tibb suuf di ko di ko di ko ko ñaanaloon na Cheikh Abdou ngir mu ñaanal ko nee na ma ne ko jëyi mosuwaar bi na ko ku bëggoon seen jubaar nag seen jubaar Cheikh Abdou daal di wàcc mosuwaar bi suuf daal nag xamul ko gën fii xamul ko gën fee daal ko jëru fii xamul ko gën fee bëggoon seen jubaar bi dëkk mooy di ko jëfal nit daw na ci ab terrain daanu dee nit na ne ci soxna jàmboor faatu ca nit doon na sàcc faatu fa nit tëriyaale yi fi jàmboor faatu fa nit naan la alcool naan la ëpp ab xolam mu faatu nit def na lu naqari yàlla lu ne faatoo ca yoonu toolu sëñ Tuubaa la ku ci nekk ba wàcc xam ndaa woor bu demee ci waar wàcc na sëñ des sëñ Tuubaa moo xool seen dem Demba Kebe ne ko Demba Kebe mu ne ko Mbàkke mu ne ko am sëriñ bu mat sëriñ mu xam la nga xam ko jar na lu ne mu ne ko alhamdulilah Mbàkke bañ la amee xam la mu ne ko Demba Kebe mu ne ko mu ne ko bépp ruu ko aju ci bépp ruu ko aju ci bu yàlla doon tax a jënd bi lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw danaa la woon sa këru àddina bala ngaa waa yàkkamti sëñ ma jëmm si la nee na sëñ Tuubaa dama koy sotti li muy jàpp ci njëriñ ba yàgg mu ne ma xëy na ma ma jëmm ma ne ko mu ne yaakaar yi ku ma yaakaar tas yomal xiyaam ngir ëllëg yomal xiyaam bu ñu teewee suñu borom teew borom jamono yëpp teew man képp maa sañ ne ñokket loo ma digal def naa musuma def loo may tere jéggalal jaam yi sëñ Mbàkki Juuf nee na ci genn kees fekk ci seen juba seen bi di muñ reeree boo xam ne bu kawee la dama mbàkk ñu xanaa li may ree yéem na la seen mbàkk bi ko waaw mu ne ko ah, man mu ne ci ruq di reeree ko ko fa fekk mu yéem la waaye boo xamoon li may reeree dana la reeloo da ko bi ma nekkee nasaraan bu mag ak bu ndaw bu mag bi bañ ma bu ndaw bi mu ne ko bis nag bu ndaw bi ñëw na ma maa yilif bu mag ba ma yilifoon bu ndaw bi ñëw na ma maa yilif bu mag ba ma yilifoon waaye nee na bañ gi mën a saraan yi bañ tax ñu jëlee waaye lu mu am ci payooram weeru dee mu yónnee ma ko sëñ Tuubaa nee na dëkkul ba ma ñëw njaayam atum ren mii nag ma xaar-xaar gisuma ndawam gisuma daraam sëñ Tuubaa na ma sëpp adduna teg ko ci sama teen mu mel lépp dërëm ma jeex adduna ba mu daj gisuma ko boobu tey boobu sëriñ ab tey di ko <laughs> na ma ba mu daj gisuma léegi ma dawal sama bët ci ba saxul mushrikiina ndax gëmul yalla fa ñe gëmul yalla ñi nek jeex jeex gisuma ko ma dawal sama bët ci ba saxul mu muy ni ne way gëm yi ya fañ nekk seen ko ci ndowale liko jox mané sa borom ké nak mu ne ma liko waral muy bëgg nak mu ne ko mbacké ci bëgg ba rek wër bëgg ma rek wër bëgg ma rek keween naw na jël wax tok jox ko sëñ tuba seen tuba day fa kullu man baadara waqta sigari ila huda staraha waxtal kibar ku jël seen ndaw jox sëñ tuba mu yalla la sa mag kenn mu se dégg mak ndaw naw lu topp sëñ Tuuba ñàkk li nga moom sëñ Ibnu Amar bi muy jébbalu sëñ Tuuba sëñ Ibnu Amar booba bàyyam danañ dañuy jaayante di jébbalu ci bàyyam sëñ na ko bàyyi mu la wala juróom-ñetti at bàyyam daal xam li muy wax wér na ñëpp bàyyi ko keroog bi mu ñëwee ñu dem wax ko sëñ Tuuba na ko doo am koo xam ne daa daa doomi sëñ Ibra Joor ja daa jël boppam jox la mu ne nañ ma ko woon ñu jaarale ko ci keesu jigéen ñi bi ñëwee sëñ Tuuba na ko yaa jébbalu ci man te gisoo mu ne ko waaw foo ma xamee dama laa dégg rek keroog baa la déggee nga ma gën a sama day gën a sama bay mu ne ko nag taf ko ci boppam nag ala loo bëgg ma defal la ko yaa bi maa ngi mu ne ko naay sëb teel bi rek. am na seen tubaab moo wóor am na seen tubaab moo wóor maam Samba ne ku faatu yaa koy jëkk a teew bu ñuy jullee nga di fa teew nuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des tempulaayam ku nekkal seen tubaab te mu wér bu sa ruugi ne génnaat lu seen tubaab gi taxaw. bu ñu laajaloo yóbbu ci armée di julli sëñ Tuubaa ngi taxaw bu ñu suuree ba nit ñi ñibbi ci kër yi di waajal li ñuy saraxe mun gën a nakir bu ñu fekk ci bàmmeel bi moo lay toog bu faatu yaa bay njëkk a teew bu ñuy jullee nga di ko teew ñu nopp nga ànd doon caaxaan kon dëgg ak lu wér ku ca nekk da koy jàpp te góorgóorlu ca fexe ba sunu taalibe gi waxtu wu nekk muy gën di yaas di ko nàmm suñu diggante Serigne Touba bëggante yéenante jàmm soppante xam ne adduna am solo adduna am solo adduna am solo de lu ne waaye mën na ko xalam de adduna am solo de wallahi alazim am solo te yàlla moom noppi na kon yàlla nu yàlla defal tawfiq nangul nu liggéey bi dajale doon gërëmul Serigne Touba te lépp lu ñu fi jàng ci alxuraan jàng ko ci xasiida yàlla jotale ko ci way jiitu yëpp ñi fi si mu defal leen ci ngëm gu dëgër defal leen ci taalibe gu sax ngërëmul Serigne Touba xéewal yi ubbeeku ba kenn ku nekk la ngay sàkku nga mën caa jot tey jii kat am na ñooñu vingt-quatre la tudd ñoom ña koy defee am fecc dagg béyee fukki junni wala juróomi junni wala ñetti junni lën lonkoo waaleeg ndaw su leen naan lu araam boole ko li fecc ba fajar ñu yibbi jàpp ne am na confiance ci si nekk passé nañ guddi gi ci passé wu baax loolu la ñuy wax waaye lii mooy passé guddi gi ci lu baax mooy ne ci Sëriñ Tuubaa jàng alxuraan jàng xasida waxtaane baaxu Cheikh Ahmadou Bamba ndaw lu ne ci loolu yi war ngaa sant yàlla sa borom bu baax a baax a baax xam ne am nga tawfiq am nga ngëneel adduna lii moo ci njariñ te yii kat defe naa bu doon dañ ko mu nekk ab fuuran wala mu nekk leneen dañ naan kenn du ko fi defee kenn du ko fi defee dëgg ak neen yow nit ñeneen ci lu bari rek waaye dëgg ak neen yow mën naa xàmmee waaye seen cubaa rek la ñuy ne dara du ko soppi kon jërë ngeen nu baal àq yal na yàlla nangu liggéey bi sëñ Moustapha na nga nu jottali sunu siyaar ci way juri sëriñ Xaadim yi yëpp ak bokk yi bokkaloon daayira bi yëpp jërëjëf suñu xol sedd na lool ci yitte ji ngeen am ak taxawaay bi ngeen am defe naa ku tudd sëriñ Tuubaa nag tudd Xaadim na kon maa ngi leen di gërëm nuyu sëriñ Omar Diagne bi sama wala rew moom it di ko ñaanal yàlla. jërëjëf suñu borom jàppale ko bu baax si taxawu leen ba li ngeen yéene lépp ngeen yeggale ko suñu musulmaan maa ngi jégalu maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf. waaw kay jërëjëf